baabaka yàlla na ko yàlla sàmm ñuy bàyyi Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni ci dakkatu rasulillahi yi la yàlla na yàlla fay bàyyi Moustapha yow suñu soppe nga waaw mag mu yëw nga mag mu baax nga yaa mag muy li nga am ci yonent bi am nga ko ba noppi kenn mënu la ko xañ yal na yàlla barkeel la yal na yàlla sàmm la yal na yàlla taxaw la bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nuyu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye suñu bàyyi Mbaye donde di ko ziar moom itam ñu sàkku ci yonent bi yal na ko ko yàlla jox. ñoom ñoom ñoom si dañ dañ maa bëgg. wallaahi loolu moo leen wax ndax yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam te man ku ma teral tedd ci yonent bi. maa la ko wax yàlla yàlla fay. lambatu ma sama waajooji. wallaahi nuyu Serigne Sam moom itam. di ko ziar di ko déggee di ko jox wàccuwaay nuyu communicateur traditionnel yi fi toog yëpp yàlla yàlla fay leen ndax seen baax dafa jéggi dal ni ngeen di def suñu maam yi noonu la suñu maam yi def yàlla ba am ko eh, ni def suñu ni ngeen di def suñu maam yi noonu la suñu maam yi def ba am yàlla jum dañu xam Seydi Hadji Malick dafa dafa xam fu muy aw yàlla moo tax mu ne xaatabtu rabbi xitaaban laa yaluqu bina rabbi xitaaban ربي ربي خطابا يليق بنا فاغفر لي عبدي عبدي من حياري خاطبت ربي خطابا لا يليق بنا فاغفر لي عبدي من إلهي أبتى صلاتي وتسليمي على على خمر من نوري خير أنواعي أذكى صلاتي وتسليمي على من النور debuka wanci udare mun basilum lana bifaidika wa tayyiru bifaidika mam abdu sarfan lana wa wa yalla tam yalla yalla fay gisoro mawdo partenaire si ma tolloo mooy communicateur traditionnel. ni ngeen di ni ngeen di ni ngeen di wullee wala ni ngeen di tàggee suñuy maam. bañ koy yëg. Falastin Xaaj Malik jaar ak yàlla. wa anta min al axlaaqu tamliku ma tasha وقرع يا باب الغير يا رب لم يزل وفي الامر والسلطان والملك في فيسر فضي على رجلتهم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله yàlla na yàlla defal jàmm ndax wax dëgg yàlla seen jikko jikkoy tedd nga la fu ngeen fekk nit wax ko lu baax boo xam ne nekkul kon boog seen ceeb yàlla bu leen ko kenn xëy yàlla yàlla jàppale leen muy murit beel ordre beeg amul loolu lépp c'est des faux problèmes loolu yooyu yàlla leen tamit yàlla yàlla fay leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla barkeel bu baax ñuy suñu bàyyi bëgg naa nga xam ne moom suñu basu bàyyi la muy Seydi Aboubacar Abdoul Aziz waaw yàlla na yàlla fay waaw am na ko lool am na ko lool am na ko lool yàlla na yàlla barkeel na yàlla dolli sutura bu baax nag. ba nii teg jël communication teg ko ci loxo. muy Diop Ndiaye muy Diop Ndiaye. yàlla na yàlla barkeel mu teg. boo boo boo jëlul woon kaddu. ginnaaw li fi boo jëlee woon kaddu ginnaaw li fi wax li nga wax barke yeneen ci bi dina loo am lu ñu yóbbaale waaye ndokk bi nga jëlee kaddu dam noo loolu naan stress bi newoon sama bopp ñëpp laa waxale ñu ci ne yaa tax ñuy dund noo stress barke yonent bi di nga fi yàgg di nga yëg as góor nga ab jullit nga ab taalibe nga te sama jël la tudde jël ah. nga ci moom ñaari jikko yi ah. maa abdu si Malick ñu ngay ñaanal ñun njabootu Seexul Xadiim la waaye fu la gis wàcce suñu bopp ndax nag yow xeeboo bi su taalibe yi te doxoo ci ma tarixa ci ma ngay dox jàngkat yii alxaji Samb

dinaa di dinaa wax ni man bi may ñëw sama DG Pape Doumbia bëgg naa nga ñaanal ko. dañ ñoo ñaanal waaye daal di barke bu baax te yàlla dolli baax nag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla yal nañu yàlla def ay jullit ngi dégluwaat sama wax si Babacar Diop jigéen maa ngi lay ziar baax na yàlla fay la yal na yàlla taxaw la yal na yàlla sagal baax ñu ngi bëgg waaye yal na yàlla bàyyi baax boobu ngeen den waaw ndax tey ci ku jaan matt ko lugu rek la bëgg ndax su ko lugu dee day am wala musiba am waaye lugu ngeen jaan ngi ba mu sëgg guy waaw yal na yàlla barkeel leen yàlla defal leen sukkër yal na yàlla loolu du si tara bu baax kontaan nañu ci ñëpp kon Babacar yaa ngi yàlla yokk sa bés jërëjëf jërëjëf Assane Samb Tumba Jàngaan wallaay wallaay wallaay Samb na nga def ba yaa ngi ci jàmm barakallah wallaay ndeysaan tuddee ko Assane Dabaax wallaay Assane Dabaax barakallah wallaay wallaay wallaay ci doo yaa ngi yàlla barkeel macha allah yaa ngi yàlla bëri sutura bu baax maa ngi jégalu mbokk yi ci kàddu yi nuyu nuyu Mouhamadou Bachir Ba di ko ziar bu baax sama soppe sama xarit ku baax yàlla yàlla fay waaye ko nuyu suñu suñu maam Cheikh Hadj Malick maam booy ñu ngi leen di oustaz day dégg yàlla yàlla barkeel leen ci barkeel tii sallallahu alayhi wa sallam ñu xaaj maamul loo gay maamu maamu ku baax te nii rek la nii rek la nit day baax day oyof day sell te gis nañu ni ngay rafetal loolu wàññi dara loolu wàññi dara rafetal wàññiwul dara waaw nee nañu ku gis lu jar a am na loo xam te ne ku ci bëggul yaa yow kay am doo ko bëgg. dëgg wallaahi. de ñëpp daal nee nañu doomu aadama journal fi ñu koy liggéey di ko. fekkee moo tax léegi koo ko léeg-léeg nga ne nit maa ngi si journal fekk mu ngi si dictionnaire toog. wallaahi dafa di góor rek. wallaahi si a wax mën a wax. dafa am fu ñu fu ñu dafa am fu ñu naas dafa am fu ñu fu ñu bëf fu ñu naapatal fu ñu jugee. te lépp ci leer te leer lu ko dafa gaaw oh. yàlla da ngay liggéey cent ans am ko nga yàq ñu yàq ko ci juróom bi ba léegi bu fees yéen waaw ci seen xaalis maa yi muy liggéeyal yàlla liggéeyal na ko ak yonent bi dun dundee seen xaalis maa ak dundal seen ñi koy dundee nag mën na ci am na ne. xam nga li gën a bon. alko xaalis ñëw jigéen bi ñëw. Oh. oto yi bi ñëw lépp wër la nga foog ne yaa ci ne. fekk yàq bu yàq. wallaay dëgg la. maanaam billahi tawfiq wasalaamaaleykum. maa ngi nuyu Pape Baye Ndiaye. Pape Moussa ñu ngi nuyu moom itam bu baax. di ko ziar di ko bége. nuyu nuyu nuyu nuyu yaayam sox suñu jigéen soxna Mbaye si. ñu ngi koy nuyu bu baax ko ziar. ak Baye Alla Mbaye mi nga xam ne mi ngi fi woon ñu ngi koy nuyu bu baax ko ziar. nuyu waa Thiès yëpp. Sam Sam fi mu ne nii xam naa ne xam naa ne que merci xanaa wala daal la xarit di sama soppe di sama basu bopp waaw loolu yal na yàlla fay la yal na yàlla baax yow rek yaa ko mën a wax ñu déglu mooy Lamine Diop Lamine Diop Dakar dafa bàyyi ay yitteem yëpp ah? jëloon programme jox ko Babacar moom lañ doon bëgg ko jox far Iran ñëw ñoom ngay àndal jox ko programme bi ñu ñaan yàlla ñu ñaan rek Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz mu ngi wax chaise ñeenti tànk la la ngay wax na doon loola yow mi ngay wax mi koy wax na nga doon kooka fa ngay waxee na doon foofa waaye ña ngay waxal nañu doon ñooñu beneen woykatu àddina bu ñuy wax njagambay waaw damay déglu te enregistré woon ma dama bi yëpp këram parce que kii enregistré xañ na ma ñaari nit ci wetam dootuma déglu li ma doon wax lay déglu moom xañ na ma boppam parce que dootuma ah, déglu ka ca ginnaaw naa la te bëgg maa déglu mi ngi naan waaye ñii nañ fay seen enregistrement bi ndax ma déglu li kii di wax xañ na ma ñett njaga mbay hmm. mel wax wax ju solo mooy yaa war a wax yaa ñu saf ba mu la tax wax loo xamul yaa war a wax yaa Yusuf, saf bu mu la tax a wax loo xamul xaaral ba sa wax jot nga wax dëgg la de waaw yow nag li nga fi def nii rek nga fi war def dëgg la de dëgg la dëgg la de li nga fi def rek nga def njaay papa njaay borom dama jël engagement faral di wax ni Eh, dafay faral di wax ni nee ku ya ku ku yaakaar ni teflit yëpp a booba jaan dala seetiwul <laughs> loolu lay wax ku yaakaar ni teflit yëpp a booba jaan dala seetiwul déggaat naa ko it ci alxaaji mbay jéey borom njaq li mm-hmm. kon si wax boko xasse def muy sa liggey jël nga buum raw sa bat jox nit ñi hmm. ñaar moy mën amna hmm. nga wax ba yow sa bopp hmm. wala nga wax ba yow nit ñi alhamdulilahi rabbil alamin ñi fi nekk ñëpp yeeweeku nañ alhamdulilah dëgg la de yàlla na lafal ca ya rabbal alamin ñi fi nekk ñëpp yeeweeku nañ dëgg la de dañoo tënk woon ñi fi ñi yeewoon ñëpp yeewi nañ mu waaw la de fay la yàlla sàmm rek la nga bi géré nga ko ci siyaasa loolu nag la ñu la xamee woon parce que loolu la sa maam ñi xam loolu la say waajur xam loolu nga war a xam waaw kay li ma bëggoon wax mooy nit bu la tàggoo ni la fuuta laa seet si la ngeen di waxtaan mu reetaan ba gàll gal tiir dafa lay nax Casamance la demoon Casamance la demoon loolu baa xaaj ñaase ñaay moo ma ko waxoon waaye tey jii ku déglu sa waxtaan di nga xam ni dana xam ni yaa ngi jóge ci Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz mu ngi ñaan yàlla guddal sa fan lool yàlla guddal sa fan lool mm-hmm. nga yàgg fi lool nga wër lool nga ànd ak Serigne Thierno Sy sa waajur wu tedd wu baax wii mm-hmm. nga xam ni ñam seet laa ko tudde ku mos tàqamti muy ñu dend ak Serigne ñam seet mos doom yi yow alxaaji Modou Diop yaay borom njëriñ li. waaw waaye Serigne Thierno si mooy borom lem gi. tabarakallah ñu ko baax a baax ziar ko kàddu yi mënuñu ko woon ñàkk bañ a seeri sa kanam ñun foo nekk dañuy bëgg nga am ndam parce que foo nekk ñun fa nekk te boo amee sac ñun am sac boo amee sac sa maam Seydi El Hadji Malick am sac sa maam am sac parce que ku ñu woon bu ma gisee alaaj Malick teral ko soko ko gisee moom mii boo ko joxee alaaj Malick bëgg ndax Cheikh Alhaaji malik la ñaar yo serigne mam Abdoul Aziz Sy sëriñ Babacar si Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Seydil Hadji malik soxna nday Maram si Cheikh Seydou al mustafa si jemi mamam mo ni won bo ñewé dima set seet si Fass pour wax ma soxla fekkoo ma fa bo dajek xale ci buntu kër gi wax lan sa soxla bu ma ñëwee jëmil man jemi dana ko tek mooy maam serigne mam maam Aziz kon yow war ngaa mën a ñëw ci wax lu nit ñi mën a dégg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu a bàyyi loo xel war na koo seetaat koo xam ni su jooy ñu bëri jooy kooku warul gaaw a jooy waaye lii la maam Seydil Hadj Malick amoon. ne ba mu demee ba jëmmi jamono. laaj ni mu nekkaloon. mu woo mag ñi ni leen. su ma ñëwoon. su ma ñëwoon. ni leen yoon bi ma leen teg baaxul. ni leen yoon bi ma leen teg baaxul. awaat beneen yoon. mu ne. mais mag ñi ni ko. dañ lay ñaanal yàlla dañu lay ñaanal yàlla nga xam ni seytaane këf na nga xam ni seytaane la yàlla delloo si yàlla na yàlla delloo si xaj Malick ak maam borom Touba ne maam Seydi Hadji Malick ak maam borom Touba lii moo taxoon ñu amoon ay nawle woon li saam wax dafa doy waar góobitul làmmiñ moo leen ko yóbbu. yonent bi nee na. nee yonent yàlla Muhammad nee na. saa yu ñu xëyee. saa yu ñu xëyee. suñu cër yëpp. dañuy ànd di wax làmmiñ. dañuy ànd di wax ak làmmiñ. naan ko ay làmmiñ. ragalal yàlla ci ragalal yàlla ci ndax soo jubee ñu jub. ndax soo jubee ñu jub. soo dëngee ñu dëng. kon làmmiñ. yàlla nañ ci yàlla mos a amiin. li tax yàlla wutal ko.

ñu toogee ni ñu nekkee nii. kon nii ñu nekkee nii. mooy naw nii la ñuy ànd. nee mag ñi dañu tàmmoon ànd te yàlla tax. jëflante te yàlla tax. soppante te yàlla tax. nee nañu moytu par parlo. ak ngistal. ak ngistal. baaxul baaxul. nit ku nekk. nit ku nekk. la ngay jëf. la ngay jëf. na yàlla tax. waaye seen nit muy ñëw. waaye seen nit muy ñëw. balaa laataa mu laa jub. laataa mu laa jub. nga wokk ki nga dendal ne ko xool ko. kii lee su ñëwee su ñëwee. nga jub jox ko ñaari loxo jox ko ñaari fóon ko fóon ko. photo ak moom photo ak moom. ko statut def ko statut. lu mu dégg ci lu ñaaw. te lu mu dégg ci lu ñaaw. yaa ko ko wax. nee loolu dafay bari. ab jikko ab jikko itam baaxul. ab jikko itam baaxul. ku nekk la la yàlla cërale. ku nekk la yàlla cërale. yam ca yam ca. nit nekk palaasam. nit nekk palaasam. nga xeex ko nga xeex ko. ba mu jóge fa ba mu jóge fa. te te keneen dootu fa toog. te fa mu newoon keneen du fa toog. musiba la loolu musiba la. kon nañu tàmm bëggante. kon nañu tàmm bëggante te yàlla tax. waaye nañu tàmm wax te yàlla tax. waaye nañu tàmm wax yàlla tax. yàlla ñu yàlla dimbali. ne yàlla ñu yàlla dimbali. ci loolu ci loolu. nit nit du def lu mu gëmul. mu ni nit du def lu mu gëmul. loo parce que ki nga sopp. parce que ki nga sopp. booy fotoo ak moom. booy fotoo ak moom. su defee erreur. su defee erreur. nga la waay. taxawal nga wax ko dëgg. nga wax ko dëgg. gaaw gaaw kenn kenn du di nga jàkkaarloog nit. di nga jàkkaarloog nit. di wax di wax dëgg. yàkkamti laa tontu. yàkkamti laa tontu. moo koy jàpp moo ba du ga. benn itam baaxul. nee beneen itam baaxul. wax ci suuf wax ci suuf. ak wax ci kaw ak ci kaw. baaxul. baaxul wax ci suuf wax ci kaw. double langage. double loolu du yëfi gor gor moomu ko. parce que itam. nee parce li ñu lay seedeel. li ñu war a fekk mu nekk ci yow. kon nit ñi nga xam ne. kon ñun ñi nga xam ne. ñoo nekkaat ci diine. ñoo nekkaat ci diine. ak diinu. ak diinu. nasiha diine laayante biir la. parce que ñu ñi ñun ñi ñuy askanalee diine ji. parce que nag ñun ñi ñuy askanalee diine ji. li ñuy tere bis bu ne. li ñuy tere bis bu ne. ñu koy def ñu koy def. nañu ko moytu nañu ko moytu. te ñaara koy waral te ñaara koy waral. par parlo par parlo. ak ngistal ak ngistal. dëgg la. wax jibatul te yàlla tax. wax benn wax jibatul te yàlla tax. yaa ngi wax yaa ngi wax. yaa ngi wax. junni ba nga cee am. pour junni ba nga cee am. te xoolal fi yàlla jaar ak fi yàlla jaar ak yow lépp. dëgg de ci sa biiru yaay ci sa biiru yaay xoolal ni biiru yaay xoolal ni biiru yaay xatee biiru yaay gën a xat bàmmeel biiru yaay gën a xat bàmmeel doomu aadama doomu aadama fa muy génne fa muy génne xaju fa xaju fa de moo tax sama turoon na moo tax man seen xaalis des da baax daan wax nan yàlla rek mooy uude yàlla rek mooy uude bu mag bi dëgg la sa dàll su xotti ko nee sa dàll su xotti ko jël der bi nga jël der bi ñëw ko waaye fi doomu aadama waaye fi doomu aadama di jaar doomu aadama foofu nag doomu aadama xaju fa yàlla di la jàppali yàlla di la jàppali El Hadji Malick si yàlla génnoon ci moom si yàlla génnoon ci moom du mën a taxawal li yonent bi su yàlla génnoon ci moom lii du am kon yàlla mi ñu seqal kon nag yàlla mi ñu seqal parce que bi ñuy jógee ci moom. parce que bi ñuy jógee ci moom. dafa am buumu kóllëre dafa bu ñu fasanteeg yàlla suñu borom. ëllëg teelëg dañuy dellu. dañuy dellu. yàlla dañu laaj boobu kóllëre. temps temps boo ci dox. temps boo ci dox. loo ci wax loo ci wax. lépp lañu lay xisaab. loxo naan maa defoon lii naan maa defoon lii naan maa defoon. lii lool. nañu ci bàyyi xel. lépp a ngi tàkk. lépp a ngi koy contact ñu koy contact. ngi wax ñu ngi wax te kenn comptable. gis nga lii. gis nga lii. jotaay bi jotaay bi xoolal fii ak suba xoolal fii ak suba léegi nga gis ko Thiès TV ñëpp di ko seetaan ñëpp di ko seetaan ëllëg suñu digganteeg yàlla noonu la ëllëg suñu digganteeg yàlla noonu la yàlla nañu yàlla musal ci gàcce tax yàlla nañu yàlla musal ci gàcce yow al qiyam lu jara ñaan yàlla la kon ah. Thiès Média ne Thiès Média ñu bàyyi itam ñu bàyyi itam nit wax trente minutes ñu dagg ci trente secondes duggal ko ah, ah. directeur ku fekkeewul wax ne ku fekkeewul wax ñu dagg wax ñu dagg wax xamoo la jiitu. xamoo la jiitu. xamoo la ci topp xamoo la ca topp. baat baat bala ci intéressé rek. baat bala ca intéressé rek. ngay jël ngay jël utiliser ko utiliser ko. yàlla xam na ni te yàlla xam na ni demeewul loolu. kon ñiy dagg vidéo yi. ne kon nag ñiy dagg vidéo yi. suñu mënul dugal lépp. suñu mënul dugal lépp. nañu denc seen téléphone. góor yi ñuy weer ci mbedd. ne góor yi ñuy weer ci mbedd mi. te ñëpp ay goro leen jur. te ñëpp ay goro leen jur. gën sa morom. kenn gënul sa morom ku dul ki la raw ci yàlla kon nañu bàyyante xel sëriñ sëriñ du question du question dafa dafa supérieur dafa supérieur ñëpp ndax su ndax su taalibe amul woon ndax su taalibe amul woon sëriñ du am su sëriñ amul woon taalibe du am te ñëpp ay alalu yàlla la loo këpp ci deru jàmbur loo këpp ci deru jàmbur ci kaw yàlla nga ko këpp ndax yaag yàlla yéen a am affaire loolu lu jara bàyyi xel la nañu dellu nee nañu delluwaat bu baax. dellu siwaat bu baax dellu siwaat bu baax. dundal diine ji dundal diine ji. bañ ko dundee bañ ko dundee. te moytu itam te moytu di reeree suñu barke maam yi. di reeree barke maam yi. ci sol grand mbubb di ci sol grand mbubb. di ci dugg oto te la ñu nekkoon ci jikko. te la ñu nekkoon ci jikko bu rafet. kenn duñu ci gis kenn duñu ci gis. lii ay faux problème la lii ay faux problème la rek. basin wak basin xaalis ak xaalis ak oto bu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet ak loolu lépp loolu lépp ñi dul nitu diine ñu ngi koy am ñu ñi dul nitu diine ñu ngi koy am kon ñun li ñu ñuy doyee kon ñun li ñu ñuy jikko yi ñu wëlli jikko yi waxuñu der yi waxuñu de jikko yi lañ ñu wëlli loo ci lu baax ci lu baax ci lu bon mais suñu demee bëgg bëgg wëlli jikko yi bu ñu demee ba bëgg a wëlli jikko yi te wëlliwuñ suñu jikko du sotti hada wa billahi tawfiq wa salaamu aleykum ji li nga ni waxal kër Seydi Hadji Malick diguñu kenn aljanna. jiili si jiili borom jinne yi nee na kër Seydi Hadji Malick gisuñu diguñu kenn aljanna. loolu nag kenn wax loowu ma ko. mais loolu nag kenn wax loowu ma ko. kër Seydi Hadji Malick alal mais kër Seydi Hadji Malick. diguñu kenn aljanna. ku bëgg ku bëgg alal. ku bëgg alal. dama liggéey. kër Seydi Hadji Malick am. ñoo ko liggéey. bëgg a topp kër Seex Xaaj Maalik. taalibe bëgg a topp kër Seex Xaaj Maalik. amuñu ko ñoom amuñu ko. yàlla lañ am yàlla lañ am ba pare yéwén. ba pare yéwén. te amuñu aljana te te amuñu aljana nag. aljana lañ am yoonu aljana lañ am. te dañu la fay teg soo ko wàccee ñu romb. mais ku sa sëriñ xas na mais ku sa sëriñ xas. da ngay war di xas sëriñ bi am. waaw sëriñ bi waaw xaaj Maalik bëgg na sànni kàddu ñu kii incha allah